Baye ma Jaxate Kala daa ñëwoon Tiwaawoon Cheikh seet si maam Cheikh El Hadj Malick ndax daa déggoon ñu ne ku maandu la sëñ Muniru ah Seyd Nuuru dafa déggoon ñu ne ku la mu ñëw fa tisbaar jot sëriñ bi ne ko doxal ñu julli Baye Xaadi di jàng ca kaw tisbaar bañ sëlmal tàkkusaan jot mu defaat ko timis jot mu yalu ko gee jot mu yalu ko suba jot mu yalu ko maam Cheikh El Hadj Malick néewu ko subhaanallah néewu ko li ngay def nag ni nii rek moo koy gunge nag ba ñuy bëgg a dugg njaasaan mu ne ko baax na ñu jàng wal asri te yewee ko maam Cheikh Al yeewee ko jëm Tiwaawan bàyyi xaaj ma jaxate daal koy dabaat nag ne ko waaw yow sama tosbaar yi démb ji loo ci wax mu ne ko ci lan mu ne ko foo gisee tosbaar ju ñuy biral mu ne ko xanaa ci yow timis ju ñu nag mu ne ko xanaa ci yow doo ci wax dara mu ne ko dama laa rawaguma rawaguma la mu ne ko lii rek laa doon si damaa déggoon ñu ne yaa maandu may seet si fu maandu te gi yem loolu la muy fendi woon ko si yaa maandu waaw loolu la ko ca tegal moo tax ca daaliyaam bu neex ba ndeysaan ca la ko doon waxe waman lii bi ustaasin aluusu bi wirdihi yaqiini yaqiinan kulla hawlin bi mawridi mu ne ko yaa maandu waaye mbokk yi yonent bi mi ngi jàngale ab jeune day am personnalité salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu majmuata wa qul jaa alxaqu ñu neen ziyaar baax a baax waaw vidéo bi euh, man dama koy seetaan lool sax dama koy seetaan daanaka lépp seetaan nañ ko pare Cheikh Aboubacar moo ko yónnee ni ma def naa ko ci groupe bi euh, oustaz Alioune Sall bi ci wax ni maam xaali ma jaxate kala dafa demoon seeti maam alxaaji Malick ba mu ko seetee mu koy testé ndax maandu na testé bi nag nekkul lu dul ci julli jot euh, fi mu war a yaloo mu tey ko bañ a yalu fi mu war a biirale mu tey ko bañ koo biiral kii ni loolu dafa doon testé ba xam lan lay wax biñ paree maam El Hadj Mali waxul dara ba mu ko gungee bay ba ñuy tàqali ko mun ko yow de xanaa sama julli démb ji waxoo ci dara de timis ji ak tisbaar ji mun ko duma ci wax dara mun ko foo ma sa gisee ñuy yàllu timis ak di biral tàkkusaan wala tisbaar mun ko ci yow mun ko na ma doon seet ndax maam ko hadihi qissatun muxtalaqa qissatun muxtalaqa مكذوب لاي واخ صاحنا مانام قصه لا بو خامني لو ني سوس لا فوك لي ني واخ موي دنج كو سوس كان موكو سوس نا فوفا لا ني واخ اسكو استاذ علي سال مي كو واخ موكو سوس ولا ا كم فم كو ليغي موكو سوس ولا فم كو ليغي ньо ньо كو سوس واي قصه بي مونتا نيك ني امنا li lañ wax ci ilmu lhadith Euh, al munkar bu ne xadis bi dafa am nakaara mooy lu mel nii bu ne dafa am nakaara beneen bi mooy bu fekkente ni dafa am xista bu ñu wax ci benn ci ay boroomi xam-xam ay kàngam ay nit yàlla bala nga koo nettali defal ta ak ku vérifier bu baax a baax est-ce que xissa bi wér na wala wérul léegi ñu wax xissa boo xam ni maam xissa bi wérul wante maanaa bi wér na bu ko defee yow booy nettal da nga naan nee nañ nangam ak loolu bu amul bu nekkee ni amul maanaa bi mën naa nekk ni wér na waaye xissa bi sanad bi mënut wér maanaam mu ca parce que ay nakaar la am nakaara bi ci gën a bi ci gën a rëy mooy ngay teste nit di ko teste ci fowe julli ngay teste nit di ko teste ci fowe julli di ko pratique maanaam pratiquement fo ci julli pratiquement premièrement mam xaali ma jaxas yaakaar naa ni passé na bu baax a baax a baax waxuma la maam xaalis maa jaxate waaye maanaam ñi borom xam-xam yi ndaw yi fi yi fi nekk rek amu ci kenn ku xalaata testé nit ndax dafa maandu wala liñ wax ci moom di ko testé ci fowee ci julli hada kalam ma ma yarkab fi laql aslan maanaam loolu ci bopp dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa maanaam dafa xeluwul xel wul ci borom xam-xam yu yu yu ndaw ndawaan yi fi nekk waxuma nag ñu mag ña loolu xelu ndaxte bu fekkente ne damay xool ndax yow mii ndax maandu wala maandu woo dinaa ko xoole ci feneen fudul may fowe julli gi yenente bi alayhi salaatu wasalaam ni julli leen comme li may jullee nga ne tey naa wuuteeg loolu bu ko defee may xool ndax kii maandu wala maandu kooku bu fekkente ni ki ngay testé ki nga fooyee julli mu noppi ci kooku ak ñàkk a dëgg-dëgg ñàkk mooy boroom nga jiite boroom xam-xam jiite boroom xam-xam nga ju kooku ak ñàkk maandoom la li bëgg a wax mooy xista dañ cee xas ñaari borom xam-xam yi ñaari kilifa yu mag yi maanaam aw xas la wu dellu ci mam xaali aw xas la wu dellu ci seen xaaj Malik te ñoom ñaar soree na ñoo ko loolu maanaam Alioune xëy na jubluwu ko ci ci xol xolam jubluwu ko ci li mu jublu mooy nit ñi lu leen yéem rek nañ nañu reetaan parce que Alioune Sall ci bare bare waxtaanam loolu reetaan leen yéemu leen waaye du xam leen atte yàlla déedéet loolu seetlu ma ko ci waxtaanam waaye li muy moom waxtaanam xërëfam li nga xam ne moom mooy objectif ci waxtaan mooy ki may waxal ak lu ma mën a wax naa fexe ba gañe lan ba gañe ak yéemoom maanaam mu yéemu ci man wala may wax muy ree al sal li mooy li mooy li mooy xërëfam ci waxtaanam yépp léegi nag xam naa ne moom jubluwu ci jubluwu ci wax waxu xas jubluwu ko ci wante maanaam loolu aw xas la bu mu wax bu mu def ba ci maam xaali ak maam seen xaj Maalik yow nan ngay jullee ci maanaam nit koo xam ni nan ngay jiite nan ngay jullee ci gannaaw nit mu mu mu def loo xam ni du yoon ca julli ga même bu fekkente ni dafa yaru maanaam dafa biral timis dafa biral takkusaan nga noppi bu julli ga boo bu ne asalaamaaleykum rek da nga ne koy da nga da nga jël maanaam ak maandu te mooy nga dimbali ko wax ko ni ko yow da nga fàttali ko ko bu ko defee nag ndax da ngay sujjoot wala du sujjoot ala xilaafin bayna ahli ilm al malikiya mooy da ngay sujjoot ngir malik mooy da ngay sujjoot boo yeloo timis ngir malik mooy da ngay sujjoot bu fekkee da ngaa nga waroon a biral ci ngir Malick mooy da ngay sujjóot qabla salaam bu fekkee da ngaa biiral fekk da war na yor ngir Malick mooy da da nga sujjóot ba'da salaam léegi kooku ak maandu te mooy nga ni ko yow kat nga fàttali ko waaye sañ noppi du ak maandu moo tax ma ne test test mënut a am foofu waxumaa nag ngay test ci foofu. foowe loo xam ni mu gën a kawe ci jaamu yàlla yi mooy julli mais loolu sax luñ koy fuñ koy askan buñ ko askanale woon ci ci benn <clears throat> Cheikh Souleymane Badiane askanale ko ci ci ci ñeneen ni kat euh, mën nañoo wax ni Cheikh Souleymane Badiane julli na ci kaw ci gannaaw Babacar Diallo Babacar Diallo euh, yàllu yàllu timis gi ba mu Cheikh Souleymane ni pat bu boobaa ma ne Cheikh Souleymane yow ñàkk nga fayda bu baax a baax lu tex kii yàllu timis nga noppi ci boo ni maa dama doon testé man la man koy man la yow Cheikh Souleymane yow yaa maandool loolu mooy mm, jamono ji rek waxuma na ko ci mel Seydi Hadji Malick maam Xalima Jaxate muy julli julli goo xam ni yow xam nga ni nii muy jullee du ni nga ni pat nga bàyyi ko sa xam ni du noonu kon yow moo tax man la qissa bi qissatun muxtaraqatun dañ ko sos euh, amoon na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi julli ñaari waroon julli ñeent mu julli ñaar rakaa selmal biñ pare benn waay bu naan zul yadayni moo ko ya rasulallah aqasrati salaatu am nasit ya rasulallah est que dañoo julli léegi ñaar rakkaa dañ ko wàññi wala dangaa fàtte yonent bi maa nasiitu wa maa qasartu salaat dé mu ko dée julli gi kenn wàññiwu ko te fàttewuma zul yadayni ko bal nasiita du ko yaa da nga fàtte ñu ko yaa rasulallah da nga fàtte ndaxte ñeenti rakka nga war a jul nga jul ñaar rakka yéen ci mu def mu daal di laajte est ce lii dul yaday ni wax noonu la ñu ne ko waaw ñaar rakka nga julli mu daal di julli yeneen ñaar rakka te daal di sujjat baada salaam naka noonu yonent bi sallallahu alayhi wa julli na benn bis juum daal di julli juróomi rakka léegi bi mu pare bi mu ne asalaamaaleykum saxaaba yi rasulallah jël nga juróomi rakka de mu daal di ba ci kub daal di sujjoot baada salaam loolu dafay am yeneen ci bi lañ bàyyiwul de ndegam yeneen ci bi lañ bàyyiwul mu dem noonu tooxuñu ko ko sallallahu alayhi wa sallam waxuma kenn ku ne yeneen ci bi alayhi salaam moo tax ma ni mag ñi daawuñu testante seen biir ci loo xam ni dafay indi am po ci ba ci ci biir jaamu yàlla loolu daawuñu ko def léeg-léeg Serigne Abbas daana Serigne Hadi Touré mu testé ko ci beneen mbir waaye du wàllu jaamu yàlla de feneen la koy testé loolu Serigne Hadi daf ko daan def waaye fan fan lay doon ci wàllu jëflante donc ci wàll ci wàllu jëflante waaye du nekk ci wàllu ibaada kooku nañ ko dinañ ci bàyyi xel ndax te léegi bu fekkonte ni maanaam tudd ñu ñaar ñu baax ñooñu daan ni ah dafa am benn waay bu demoon ci benn waay kooko jiite ko ba ko jiitee ñu jël timis mu yalu euh, <coughs> mu jël timis mu yalu tis tisbaar ga da koo jëral timis gën a koo yow fekk na moo ko tey bam pare euh, kenn laaju ko kenn deful dara bam demee bay bëgg a dem mu daan waaw tax laaj laajulee mooy tax ma def lii ñu ko dee mun dama doon test dama leen doon test bu fekkee tudduñ ci ñaar ñu baax ñooñ dan naan kon benn ñaar ñu doon foloon rek dan ñaar ñu doon fo la woon léegi nag loolu nag mënuñu koo askane mënta nekk ñu koy askan ci maam xaalima jaxate ak di ko as ak ak di ko askan ci ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk maanaam lii lim def fo ci fo ci julli la keneen ki tamit noppi gim noppi loolu du ak maam moo tax man loolu du jikkoy Seydi Hadji Malick si du jikkoy maam Xaalima jaxate kala léegi nag boo gisee Oustaz Alioune Sall mi ngi koy wax nit ñi di xàqataay te xamuñu danger bi mu leen danger bi mu wax maanaam daf leen doon yëkkati far nag xas leen te yëgu ko buñ ko waxatee ci nit rawatina moo ay nit ñu baax premièrement xool leen hayatu xista bi ci boppam xista bi ci boppam forme bi xista bi nu mu maanaam alqissa bi bi shakliha ngeen xool qissa bi nu mu demee buñ xoolee qissa bi ñu ni kii kat qissa bi daa warut a mën a am bul ko nettali bu fekkente ni gis nga ni qissa bi kat même bu fekkente ni wérul qissa bi maanaam qissa la bu maanaa bi wér na maanaam loolu lu yella ci ñoom nga nettali ko te boo koy nettali da nga koy nettali bi siixati tamrid li naan bi siixati tamrid mooy lan da nga ni نتل نج نينانيو لولا يوك سيغة التمريض روية ويدوني ديو مو وقت نان يروا مي وقت بطانا نني باي خلق باها باها بون دي نتل المغنيو باها يفي نتل القاي قصة نانيو ميتو دي لين سي خسالة دونيو كو يب نيوم نيو لين دي خسالة دونيو كو يب سيدي حاج ما جومبو ناك di julli ci gannaaw nit koo xam day foo ci julli gi wala day juum ci julli gi te du ko fàtte boobu seen xaaj Maalik mu xam seen xaaj Maalik ci du du kooku xaadi ma jaxati tamit jomm na di teste nit di ko teste ci foo ci julli moo tax man la ñaar ñooñu mënut a nekk ndegam ndegam loolu mënuñu koo mënuñu koo saxalal mënuñu koo gëm ci ay nit ñu baax ñu fi nekk ñi ñi ñuy dund jamono ji donte bari même bu bariwul sax wante ay nit ñu baax di dund ci jamono ji ndegam loolu mënuñu ko imagé ci ñoom wax baax nag ci ku ci mel ne xaar yi ma jaxate kala ak ak ak seen xaaj maari ñu ngi leen gërëm leen sant asalaamaaleykum mbokk mi gannaaw bi nga seetaane vidéo bi ba pare ñu ngi lay ñaan nga bës fii ñu bind j'aime bu fekkee gande si chaîne bi nag bësal fii nii ñu bind s'abonné après nga activé cloche bii nii mën nga tamit wax sa xalaat fii nii si yi doo ci fay dara te dina tax vidéo bu ñu dugalati di nga si jot jaa ngeen